moo ngeen nuyu ñu ngi leen di sant leen fay. waaw gañ la gis ci euh, réseaux sociaux yi événement yeeg genre tey ñu gis la ci journée bi lan moo ko. Euh, wax dëgg yàlla suñu sœur Didi euh, moo tëgg événement bi donc invité ñu pour décorer ñu donc moo ñu waral tey ñu yow d'accord gis nañ ne décoration honorifique lañ la jox léegi dañu bëggoon xam sa impression par rapport ak honoration. impression bi du dara lu dul kontaan franchement kontaan nañu. parce que tey euh, même bu man sax bépp jeune bi nga xamante ni que yaa ngi def lu baax rek ba pare am ci yéene euh, si say mbokku sénégalais euh, kooku dañ ko war a jàppale. encore di remercier Didi you ci awoos bi et puis et puis voilà franchement kontaan nañu. donc franchement prix bi kontaan nañ ci je pense que tey war nañ ko encourager kii di Didi. Euh, ni muy encourager jeunes yi nga xamante ne comme ñun la ñu mel euh, di liggéey euh, pour suñu réew.